DG Siré Dia maa ngi lay ñaanal ci barke Kaabatullaahi yow DG yaa tax ma ñëw fii ci Makkatal Mukarrama maa ngi lay ñaanal ci barke tawaaf bi may def muy tawaaf tàggu ko ci barke Kaaba ma jàkkaarloo maa ngi lay ñaan ci barke xaram yow DG Siré Dia yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk sa taxaw la yal lu bëgg yal na ko may la wër may ko say waajur may ko sa njaboot yàlla def ci yow barke fii ci Sénégal bëgguma laa fay yàlla mbiram fay yàlla dara fay ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla taxaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar dèjà Sénégal maa ngi lay ñaanal lépp loo bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dèjà Sénégal maa ngi lay ñaanal yàlla defal ñu fi loo bëgg yàlla may ci bépp ñëw sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal la ndam defal la xew defal la wërsëg defal la ay say wéy mooy ko sa njaboot bi jaay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam day xees rek lépp loo ragal yàlla na ko yàlla dàqal te kenn ku lay gis fexeel yàlla bu la gis sa diggante ak président Macky Sall yàlla diggante ba neex yàlla président Macky Sall am ci te am ci confiance confiance ki moom ci yàlla na ko yokk dara la ko def yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam day xees rek moo dama ci yàlla la yàlla defal loolu ci barke salaam fatiha amin min yàlla amin min yàlla